loolu loolu corruption la. waaw ah, loolu koy corruption la loolu corruption la. ñu caaxaan waay. xam nga joxe moom bu mën da ñàkk. joxal ki ko soxla. waay ñu bàyyi caaxaan waay sëñ bi. sëñ bi nañ bàyyi caaxaan jubal jubbanti gi ñu wax nañ nañ ko dëggal daal nañ ko dëggal nañ ko nañ ko dëggal sëriñ bi sëriñ bi daal euh, bëgg naa nag benn balaa may jeexal nii ma dugg ci yow itam mais <laughs> RTS moom RTS ban RTS nga bëgg a gis ci 2024 bi ci régime bu bees waaw RTS bi ma bëgg gis de xam naa léegi mu am njiit lu bees waaw loolu moom waaw loolu moom mënta ñàkk farata la waaye RTS ma bëgg a gis daal mooy doon RTS te yombul dañ koy xaar tey jii nii waaw RTS daal ni mu tudd ni mu tudd daal na ko wuyoo rek rajo diffusion télévision Sénégal maanaam njibi mii bu toogee ba d'accord rek la bari président de la république Bassirou Diomaye Faye mu am lu mu bëgg dénoncé mhm. boo demee RTS ba ñu vérifié xam ne xabaar bu wóor bu leer la ñu bàyyi ko mu wax ko mhm. dégg nga. ndax tur bi comme ni nga ko waxee rek daf ko daf ko wuyu ah. radio ah. télévision sénégalaise. donc waaw ah, kay. si si na na tudd noonu rek. waaw na ko sénégalais moom. nag fa na fa ku fa bëgg dem dem dem fa opposition ku bëgg a dem dem fa waaw buñ ko tëjal porte waaye nag lenn am na. lan mooy yow ñu may la buñ la may nag loo xam ne da fay dem di influencer ngir yàq. déedéet na ko na na xam nga bërëb boo ci ñëwee fekk fii règlement rek comme ni nga koy baara di waxee boo fekkee règlement yi bu jubee rek waaw bu jubee rek baax maam na jub rek na loolu rek mooy wax bi jub jubal jubal léegi nag ah, ñoom waa RTS tippi yàgg yaa ngi gis waaw da leen yàgg taakale nag waaw moom xanaa nag wàcce nga nag taakal yi nag man man xam nga defal nga leen fi taakal glissé ah, waaw taakal par derrière <laughs> teg nga ko ci tibia bi ah, waaw waaye loolu lépp gis nga ko ñoom ñoo ko dëggalal seen bopp <laughs> ñoom ñoo ñoom ba gis ay emploi yu liggéey daal di wax na ñoom dañ leen yóbbu frigo ñii fayuñu leen ñii dañ leen dàq ñii ay privilège amoon xañ nañ leen ko ngir affaire politique waaw mu jeex teg nguur gi di jeex tamit ñu ñu yokk ñu recruté yokk ay salaire ñu oh. ay privilège waaw loolu lan la yóbbu leen foo xam defe nañ waaye jëlee man daal xam nga ñii seen caaxaan yi fa nekk comme dañoo caaxaan ba dugal retraité doom ñëw ah retraité doom ñëw comme dañoo caaxaan ba def loolu sañ bi yow en président caaxaanal ba dindi ko rek ba dindi ko rek waaw ci diplomatie. ah diplomatie rek comme dañoo caaxaan ba def ko caaxaanal. ba dindi na ba tàpp la reetaanal ba tàpp jeex na xam nga gars yi ku maslaa <laughs> ku maslaa wax jox la kay maslaa wax delloo ko rek. at noonu lay doxee waaw <laughs> gars yi bi ñu demee defar seen xëram yooyu. waaw sëñ bi la de. <laughs> waaw kon mais sëñ bi looy liggéey. waaw man day wax dëgg yàlla ab faj. yow lii chroniqueur da nga ko jàng de. déedéet chroniqueur la jànguma ko moom waaye faj ba jàng naa ko moom. faj ak ñaan moom jàng faj ngay jàng. ci ko xam ne ni ma ko mën a misaale mooy diggantale hémorroïde ak wàllum ngóora kooku jàng naa ko tey maa ngi ci def ay résultats yu extraordinaire yii maa ngi ko jàngee Touba yi maa ko jàngee Kaolack yii maa ngi ko jàngee Mali yii maa ngi ko jàngee Burkina waaw kon da ngaa génn ba biti réew. pour ah, jàng ah, pour ah, ñëw dox naa pour wuti xam-xam de wax dëgg yàlla dem naa fu sore sore sore. ok li moo tax boo ma teelee géopolitique bi histoire bi di ma ko wax. <laughs> am ay ay lijaase yu kawe. ci ci ci wàllu tubaab. wax dëgg yàlla day yàlla dogal na day. bari naa li day njàng rek am solo. xam-xam daal waaw waaw naa ne moom. Mm, wa fawqa kulli si xel men xali men koo ko am xam-xam ku ne am na ku ko raw te ana las naa xaaliman wala mutaalliman du ma xam-xam du ma xam-xam du ma ko jàng xam-xam waaye daal bëggoon naa ko moom tey it wuti naa ko gëstu nga. waaw wuti naa ko waaw wuti naa ko ci loo xam ne dafa dépendre ci faj dama koy faral di wax. Mhm. ñoo koo xam ne man dafa am problème mu kattan kattan moom daa bari yi koy joxe. Mhm. am na ko xam ne amul hémorroïde ji bi amul benn problème. loolu mhm. ne moom yëgul boppam daal te bu xoolee hémorroïde gis ko ci boppam. te moom yëgut boppam na mu war a boppam. am na ko xam ne sax bu yëgee boppam du du dëgër na mu war a dëgërlee. kooku am pajam yomb na lool. parfois loolu rab moo koy def. rab dong moo koy def parfois. parfois yi nit ki lekk yi muy lekk dajaloo def jeexit ci cëmmam def jeexit ci deretam. moo koy jural yéen jàmm parce que gis nga gis nga maanaam képp koo gis moo xam ne mi ngi dem normal. di sëy te dara dara amul gaaw daanu dalu ko dara dalu ko kooku xamal ne deretam mi ngi fonctionné normal. Hmm. mi ngi fonctionné normal. fi boo xoolee li ci gën a bari diabétique pour mu doon pour mu am bi mu war am ci wàllum néegu sëy day jafe ñi am ay pour ñu am kàttanu sëy ni ñu ko war a amee day jafe. ñii ñëpp nag am nañ seen garab boo xam ne maanaam dañ leen di faj ba mu nag moom ñun mënuñu koo faj te duñu du ñuy faj mais hmm. dana jox garab boo xam ne boo boo jëfandi boo booy jaxasoo doo yëg yow daal na la hmm. doo na yow am nga problème aussi di nga jaxasoo xam ne hémorroïde hémorroïde boo gisee boo xam buy génn la budul génn day gis koo xam ne biiram maanaam day def ngelaw su lekkee pour mu war a res day jafe wala mu dem wan ak dem toog kii duus bi yàgg fa lool day ngelawal ba son jóg dem yoonam waaye lam fi bëgg a def du ko def ak di seere seere gu metti ay tànkam di metti si ma ko yàgg waxee jàpp ay poojam pour mu dox problème lay dun nga defe ne kii nii daa mën nay xalaat sax dañaa njort naan waa man dama am ay insistance réno et cetera déedéet loolu émoride da koy def yaram way tànk di metti ba jëm nii ci aw loos gannaaw émoride da koy def loolu nag ku mu daal maanaam dama fexe wax ba gàññe dara ba yóbbu ci hépatite hépatite nag mu la yóbboo moom dana la yóbbu ci cancer loolu moom yàlla nañ yàlla musal ku ne xam na ko mm. aussi itam nit ki am hémorroïde ba pare mën a sëy normal dafa jafe dana jafe lool du bari lu mu yegg wax gis nga nit ki saa yoo xamee ne yow nga ci lal maa koy wax mu nekk benn test pour pour mboolem ku ma seetaan da ngay góor maanaam day war ngaa yëg sa bopp saa yoo yeewoo ci bilal fajar war ngaa yëg si bu baax da nga ko war a yeewuwaale loolu mooy li normal da ko war a yeewuwaale da war a yeewuwaale yow yëg nga sa bopp am 24 heures yëgoo dara ci sa bopp wérat di moom ñëw na bu baax boo ko yëgee boo ko yëgut boo ko xamee ak boo ko xamul loolu nag amor yi dina koy def muy saa soo xamee naa gis ko ne moom ba bu demee balaa yëg boppam balaa yëg dara pour ànd ak soxnaam day yàgg lool te buy demee ba yëg boppam it maanaam du yàgg ab diggante bu gàtt ay deux minutes trois minutes te wax dëgg yàlla góor bu yore war naa mën a dem ba trente minutes ba waaw am na ci loo ay détails la ma ne su ca jàll mm-hmm. waaw wax waxta gi yàlla lenn tam mooy yaakaar naa ne man nga ci témoin yow mbirum kayit ci ñuy tukki mm-hmm. amul kuñ ciy jëflanteel échec ko mm-hmm. loolu nag mbirum yàlla ñu dañuy wax na ñun lépp lu ñuy ñaan yàlla ci ay tegtal la ñuy jaar ji bi muy mbirum ñiy tukki bëgg séjour wala ñu bëgg a def wala ñu bëgg déposé fële ca euh, bitim réew surtout réew yooyu di réew Amérique yi wala yooyu Europe yi nga war a jàkkaarloog juge bi wala a am avocat ñooñu ñun ci jëflante ñëpp am nañ seen i kayit ba teeku ñëpp am nañ seen i kayit ba teeku moo xam ne ki dafa bëgg séjour wala mu bëgg euh, passeport européen wala passeport américain wala green card jëflanteel nañ ci mbooloo mu dul jeex loola lijjanti ne ko na ba set wala nit koo xam ne jàng na ba pare di wut liggéey pour mu am liggéey rek day jafe dama koy faral di wax jànq ba am say diplôme di wër liggéey foo dem teg si CV bu rafet dégg nga. Hmm. maanaam duñ ko xool sax nag duñ ko xool dañu xool CV bi. Hmm. parce que li tax duñ ko xool mooy nit dafa bari lu koy gàllankoor. Hmm. gis na ko xam ne dee jàng lañ ko lañ ko gàllankoor. liggéey ko liggéey liggéey ba bu jàngee pare am jàngam du ko day jàng ba pare ñu door koo song liggéey ko gis koo xam ne àndandoo ak rab daf koy sonal. ba maanaam pour mu mën a nit ñi maanaam barab bépp bu muy liggéeyee bu fa amee ñaar dafa ñett day mel ni ñoom dañ koy xool bëtum bañal daal te du leen def du leen koy def. toujours koy def gis ko xam ne day démarrer liggéey patron bëgg ko trop mais day jékki-jékki patron di ko sañ xef nangam ki nangam et cetera loolu rab daf koy def loolu rab gën a bari rab daf koy def wala ab ku ab wala ku liggéey jàpp gis koo xam ne day liggéey mais liggéeyam day dem ba àgg ci niveau bu kawe kawe waaye day jékki-jékki rek daanu gis comme day liggéey saa su ne ba jàpp ne liggéey mi ngi ci am bëgg am satisfaction rek liggéeyam du mujj fenn day yàqu loolu dana koy def liggéey dana koy def hmm. gis xam ne dana liggéey dana am xaalis te xaalis dana dugg ci loxoom bu hmm. baax macha allah macha allah dinañ am xaalis bu baax waaye xaalis bi muy am daanaka luy jaar ci loxoom rek di jàll la saa yu demee ba jéem am benn process sax ne su ma jotee sama salaire wala su ma liggéeyee ren ba déwén dinaa am temps ndax sama salaire mën naa ciy denc chaque fin de mois nangam ba demee ba weer ba nga war a évaluer boo xoolee dara doo ko yor ndax hmm. lépp dem na la nga saa soo demee bëgg a denc rek faaw programme am hmm. programme boo xam nga cee def gis nga ñoo xam ne seenu yaram aussi daa am hmm. ay façon yu jeex la Mhm. dafa wax ne rab moom ku ko indi ci kër gi automatiquement day wër mhm. waaw ñu ma ci jëflanteel ñëpp jëflante waat na ma ak ñoom mhm. waaw te te waxtu ne dama ko faral di ñaa eh, suñu ni ñuy liggéeyee nii la yow boo fekkee ne da ngaa soxla mbir mooy dugg ñu seetal la ñu seetal la bu dee soxla waxuñu ñaanal la nga wax ni nga ko bëggee waaye li gën mooy mi ngi mel ne nga dem ne da ngay faju te defoo consultation bu am ordonnance li gën mooy nga def consultation def la si xaar xool say problème lan la say sarax lan la sa tabiaxa lan la sa biddiw lan la et ñu man la cee defal ñaan li nga bëgg gaaw ko mbirum xalwa itam dañ ci dañ rek mbooloo mu dul jeex xalwa ñoo ko faral def képp koo xam ne defal ko jar ñu nañu ngaa génn soxla si faju moom baata tontu la soo ci la ca war ñu defal ko nga gis ko comme nañ ko defee ñeneen ñoo xam ne mbooloo yi dul jeex lañ macha allah hmm. ñi nga xam ne dañoo bëgg formation ñi ci guddi ñi ci ay guddeem koo xam ne nar ngaa jubal te bëgg a doon maam ab directeur hmm. wala nga bëgg am poste baax wala nga yor poste te bañ ko ko dindi daañu la fa yóbbu daañu la fa teg wala boo fa nekkoon daañu la fa desal te duñ ci te duñ dara kenn nit du la fa jële hmm. waaye man maa ngi ñaan ku may jëflanteel ngir saxal la fi ngir yàlla nga liggéey loo xam ne lu yub lay doon ngir bu ëllëgee bu ñu dajeek yàlla yàlla mën laa jégal jéggalaale ma hmm. am na solo sëriñ bi ku la bëgg a topp kon xanaa numéro yi moo nekk nii ñuy seen ci écran bi donc euh, yéen ñi bëgg a gis euh, sëriñ bi wala ngeen bëgg a déggante moom da ngeen woo ci ci numéro yooyu ci bu jokkoo bi su ko defee ngeen mën a àndandoo moom yaa ngi Dakar wala yaa ngi. ah maa ngi Dakar waaw ku la bëgg a ku la kon daal. accessible maa ngi parcelle kon nag Andre Andre nee na moom. <laughs> Andre dina ma rey Andre nee na man Andre nee ko rab bu bon laa yor lu ma yor mu dem nee lool loolu la yor man de Andre dina ma rey Andre nuyu naa la baax baax Andre Modou ah, Ndaw Modou Nguer nuyu naa leen ñi ma nuyul woon sànq maa ngi leen di nuyu balaa ngeen may mere Umar Sarr donc yéen ziar naa leen Kumba hmm, Gaye jërëjëf ah. jërëjëf yéen ñëpp maa ngi leen di sargal di leen nuyu bu baax a baax Moustapha Kébé macha allah yow tamit jërëjëf cant ak ngërëm ñeel na la en tout cas yéen ñëpp maa ngi leen di ziara ah donc yéen ñi ñu doon message yéen ñuy jokkoo ak ñun Cheikh Ibra Seck eh, nuyu naa la Umar Sarr maa ngi lay jaajëfal Sall bay Mor ah yéen ñëpp Souleymane Fall. donc Souleymane da ngay da ngay def 78 waaye wala numéro boobu boo jotee Serigne Modou Astou rek ah, di nga ma mën a jot incha allah ñu waxtaan incha allah bu baax a baax a baax wala ngeen def 78 472 49 49 donc foofu waa régie di ngeen leen jot dinañ leen mën a donc gindi ci ñun man wala Serigne Modou ko ngeen ci soxla rek hmm? Mamadou Gano du Gano maa ngi lay nuyu bu baax a baax a baax a ah, yow fàttewuma laa nuyu de ah borom ngënal Serigne Fallou ah, nuyu naa la. Euh, nee ko Serigne Fallou mu ngi lay nuyu mu ngi lay nuyu donc Serigne bi Serigne Modou Assou Serigne Serigne Modou Assou nee na mu ngi lay fay bu baax baax ami fay jaajëfal naa la Xaadim Lo yéen ñëpp Samba bu ñaa Niang Samba Daouda Ndiogu Diop Ah, Fatou Fa Mbodj Yoro Dem yéen ñëpp daal cant ak ngërëm ñeel na leen nuy naa leen Ibrahima lii ah, pour nee na pourquoi baara Bara Dolly ne <laughs> c'est lui qui contrôle tout <laughs> donc Kiné Ndiaye ñun ñëpp maa ngi leen nuyu moo njort nañ ne nag ñu ngi gis euh, xibaar yi donc en naa ñu ñuy xam donc gis nañu impôt et ñu ngi wax ne am na ay changement yu bees ci bopp ba donc kilifa gu gees am nañu ko fa donc jombul dinañ ci ñëwaat ci suñu yeneen i jotaay yu euh, donc yoo xam te ne dañ ci waxtaanee réew mi ak tolluwaay bi Ah, yéen ñëpp maa ngi leen di ziyaara di leen nuyu bu baax a baax sëriñ bi jërëjëf jërëjëf ji bi looy tàggatoo jërëjëf mooy euh, tàggatoo rek mooy <laughs> gis naa ku bind naa ndax soogaru koor la bokk si diine ah kay <laughs> bokk na si diine du dara loolu diine mën na ko du ko tuddee noonu maam soogaru koor hmm. ay Sénégal lañ am aada maanaam suukaru koor moom da ngay dimbale nit ki la rek hmm. ci ay ndoom loolu yàlla man san la si yokkadidullah jàppalante la foo wi ay fo rattaxal hmm. la rek hmm. waaye nag dafa am ñu ko aajowoo rek nañ koy jox ñu ko aajowoo li may tëjee mooy euh, Sénégal daal yéen ñëpp jaaraama waaw jërë ngeen jëf la yàlla ci maanaam waaw amin coono bi ngeen daj ngir réew mi egsi fi mu egsi walaay popul bu am jom ngeen popul bu am ngor ngeen popul boo xam ne la ay jaamukati yàlla ngeen ci seen askan. dama koy hmm. faral di wax. Hmm. gis nga jibi hmm. man day li ma def ci procès bi ngir ñuy ñëw ci présidentiel. bokk na ci li nga xam ne gëm naa ne bu ëllëgee su ma jàkkaarloo sama borom mën naa ko koo gaaral ngir mu jéggale ma ko. man yaakaar naa loolu. waaw jëf jooju moom jàpp naa ne ju baax la moom. jooju moom ñeme naa ko ŋàbb it yóbbu ko ci sama kanam borom. Sénégalais yi aussi ñoom ñëpp la même chose yéen ñëpp jëf jooju moom na doon yaakaar seen kanam borom. waaw defe na nit ñi da ngeen yeewi ku ngeen fexe bàyyi seen lépp ngir yeewi waate nit ñi mm-hmm, am na solo loolu alamin jërëjëf jërëjëf jërëjëf en tout cas Serigne ñu ngi koy jaajëfal baax baax moom la ñu ci waxtaan wi ay teen yéen ñi doon suivre ah, doon def seen i commentaires yéen ñëpp ngërëm ñeel na leen du côté de la régie également tuuti jigéen bu mën góor maa ngi laa ziara merci beaucoup en tout cas Ismaïla ñoom ñëpp ah, jaa ngeen jëf merci au revoir